أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey ñoo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala toll ci suura ala imran ñuy jël tey ñaari aaya ci kàttanu borom bi muy aaye 69 ak aaye 80 79 79 ak 80 ñaari aaye yi nekk sunu kanam borom bi tabaraka wa taala diñ ci jàngal ñeenti mbir daanaka aaya tey yi ku ko déglu bu baax a baax a baax peut-être ku tiimul ci téere bi mën nay romb rekk déglu kàddu gi day wax ne déggal kooku day tooñ walla mu ne seetal lii rekk xoola kii li muy wax rekk kii de ñoom diw lay wax walla diw lay wax lu waral loolu mooy aaya yi nekk sunu kanam moo duut baaraam ay nit joxar bi leen xamal leen ne liñ def jaaduwut te nekkuñ ci dëgg te jaaruñ ci yoon aaya yi nekk sunu kanam muy ñaari aaya day delloo ay nit ay tontu yu bu ngeen fàttewul benn délégation nasaraan boo xam ne ay najraan lañ ñoom la ay yii di tontu waaye est-ce que ñoom képp képp kese la képp ku jàdd ku mel ne ñii ay duut na la baaraam sunu borom subhanahu wa taala ci ñaari aaya yi def ñuy wax ne lam yakun min al mumkini liman ataahu llahu alkitaba walxukma wa sharafahu binnubuwa an yadcuwa annaasa liibadatihi liibadati nafsihi fadlan min ibadati gayrihi sunu borom nee na lu warul woon nekk la lu warul jaadu la lu xel warul woon xalaat la ci waa joo xam ne yàllaa ko teral may ko xam-xam rawatina xam-xamu kitaab kitaab boo ko déggee rek mooy téere ban téere mooy diine injil tawraat alquran ci gàttal waa joo xam ne yàllaa ko may xam-xamu diine yàllaa ko dénk diine wala hikma yàlla dénk ko xereñ yàlla terale ko ak yonent waa ji bi ko yàlla mayee lii lan la waroon defal yàlla laaj la lu mu waroon def ah mu sant yàlla loolu kese day sant yàlla rek toog waaye waa ji lan la def an yad'u naasa li baal mu ne nit ñi ñëpp ñoo leen ñëpp ñoo mu ne jaamu leen ma maay yàlla waaw mu nëbb mu nëbb yàlla mu wone boppam loolu la gaa yi def waxoon naa léegi ku romb te tiimul ci aaye te naan béggal kii xoolal day tooñ déedéet waxu yàlla la te bu ngeen ñëwee ci aaye ngeen xam ko te nit ñi noonu lañ def jamono bii wootewu diine nëbb yàlla wane seen bopp kër yu bari ci diine Sénégal loolu lañ def woo nit ñi ba nit ñi ñëw te seeni maam yooyu nekkoon fi sax bu fekkee ne ñoom la ñooñu sax xëy na ñii li ñuy def sax ñooñu waxuñu ko woon waaye bal sax am na ñoo xam ne ñooñu sax ca jamono yooyu dañ koo defoon dafa bëri ci ñoo xam ne dañoo dévier woote lislaam bi joxuñu nit ñi lislaam waaw indi lu ñu nit ñi li yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi woon ndax yell na koo xam ne nitu diine la yàlla may ko diine defal ko taraanga ci diine may ko xam-xamu diine defal ko sutura may ko mbooloo kooku lu ko waral mu jëme jaami yàlla yi ci yàlla waaye mu ne nit ñi man la may yàlla kaay leen waaw man lu ngeen ma defal rek daanaka yàlla ngeen ko defal daanaka man bu ngeen yegsee ci man rek dem leen ngeen toog bu leen defati dara yëpp baax na yàlla mu ne lii yellul dem leen ngeen toog fadlan an ibadatillahi bu leen jarul jaamu yàlla dem leen ngeen toog seen yëpp baax na fii ku fi ñëw rek doo kala ardo doo haajuma humtiima du loolu ngeen wonaa noon mbiyotoon mooy fii ku fi ñëw rek sa affaire yëpp baax na dama nga toog loolu musiba la ku fi ñëw nit dem ba maak affaire am baaxul nit dem ba midin affaire am baaxul yonente alayhi salaatu wasalaam sang nit sang ko mantoom suul ko bëgg a ñaan yàlla mu ne ko kii mi ngi safara muhammad moo def loolu kon keneen nag ah keneen waxi noppi nekkul ku teew ci mbir mi rek mbiram baax na nekkul ci mbo ku ñëw ci mbooloo mi mbiram baax na ki ñëw ci mbooloo mi te melul ni waa mbooloo mi mel deful li waa mbooloo mi di def nag xanaa sax buñ ne woon ah ku ñëw ci mbooloo mi jaamu yàlla topp alquran topp sunna góor góorlu xanaa sax waaye da ngay gis koo xam ne diine lislaam xamu ci dara fistin tarfatal ayn ñu ne mbiram baax na kii moom xaw ma kan waaye yow moom texe nga ndax yow li nga am fii kenn am ko fi yow lan nga fi def jàng yi nga indi seize bi rek seize yi wala baas yi nga luwe wala ndox mi nga indi wala boisson bi wala yaa indi nag bi rek ñu ne sa mbir baax na c'est pas ça du noonu de kon aaya yi daf ñu bëgg a delloo si dinaay faral di wax lu bari li tax julli di alkumay dañoo bàyyi alxuraan te wallahi dëgg la te wallahi sunu mbir du baax dañuy sonn du baax parce que li ñuy baaxal yàlla fii la ko wax lii ngay xam nga yeewu alxuraan day yee nit day tax dootoo nekk jaamu kenn kenn dong ngay nekk jaamam allahu subhanahu wa taala waaye boo jàngul alxuraan da ngay jaamu lépp ngay jaamu da ngay jaamu ba jaamu nen da ngay ragal ba ragal nen nen mu nekk boo xëyoon suba gis sa buntu kër nga ubbi rek gis benn nen doo génn kër gi bis boobu da nga daan raf buntu bi tëj gelluwaat ci biir kër gi ñu ne la nijaay lan la nga ni nen ci digg kër gi xoolal commencé tiit commencé fekkee dafa am ñoo xam nga commencé leen woow mais lii lii du neen ma fekk du dara boo ko jëloon léegi nga dem ut diwlin dafa am suñu benn xarit semaine bii de motul kii xam na ko kii xam na ko Oustaz Diouf ñu bari xam nañ ko fii moom laa doon def loo fi ahkaamul janaayis daf fekk benn neen ci wetu école am benn neen la mu dem yokk ci ñaar fekk kii jaay omelette mu ne ko omeletal ma neen yi ndékkee ñett yëpp waaw benn la woon mu yokk ci ñaar moom xéewal la nen kay boo ko fekkee yàlla moo la defal xéewal jëlal rek bul sax hésité nen lu mu mënal diwlin bu tàng dina ko résister bu ci seytaane nekkoon dana génn bu gaz bi tàngee jër xam nga ne du fa toog kon loolu mooy benn ñaareel mooy saadaatu naas ñan ñooy sangu nit ñi nit ñi ñan ñooy seeni kilifa ñan ñooy seeni sang ñan ñooy sëriñu nit ñi ñooñu lañ yàlla dañuy leeral mu ne hum arrabbaniyuun mooy ñi leen di yar jëme leen ci yàlla ñii ñooy sangu nit ñi waaw ñii ñooy sëriñu nit ñi ñii ñooy guide religieuse yi ñii la ñii ñooy ñi yàlla wax ñooy niti yàlla yi mooy ñan arrabbaniyuun allazina yurabbuna annaasa bil ilmi wal hikma ñi nga xam ne ñooy yar nit ñi ci xam-xam ak xereñ ak jaamu yàlla fa yuslihunahum wa yahdunahum ñuy jubanti nit ñi di leen gindi ay ñoo xam ne waxuma la gindi nit ñi waxuma la jubanti leen waxuma la jàngal leen waaye bal dañ leen a gën a sànq gën leen a réeral gën leen a dëngal gën leen a la hawla wala quwwata illa billah wala Sénégal nu mel bis bu nekk boo xëyee di nga dégg woote bu bees kilifa bu bees tarixa bu bees soo demee ci tarixa Tijaan li fi Cheikh Ahmad Tijaan indi woon daanaka moom bu dekkiwaatoon ñëw dana gis ay tijaan yoo xam ne dana yéen ay tijaan ngeen ñu ne waaw mu ne ah tijaan bi de man xaw ma ko boo ñëwoon ci Cheikh Ahmad Bamba kazalik dina dina gis loo xam ne mu ne yéen lan ngeen ñu ne ko murit mu ne yéen ñi ah man de li xaw ma ko woon indiwuma ko noonu lan def diine bi kenn xamul lii lan la pëccëxoo xam ngeen pëccëxoo loolu olof yi naan sabar bu tas ku nekk nu la neex ngay duggee loolu moo am ci diine bi ku nekk di woote am na ñoo xam ne sax léegi dégg naa bu ñuy julli sow la ñuy jublu sow dégg naa koo xam ne benn rakk lay julli ñu ne ko lii nag mu ne yàlla kenn la benn rek lañ war a def kenn la benn ngeen war a def amu leen droit def ay lii ngeen def nii du kenn la ngeen di def lu bëri yéen déggu leen diine déggu leen ay ñun fun jëm yal na yàlla sàmmal boppam kon sangi nit ñi bu ñu bëggee xam ñan ñooy sangu nit ñi ñan ñoo war a nekk kilifa nit ñi ñan ñoo war a nekk yarkat yi ñan ñoo war a nekk jàngalekat yi yàlla wax na ko mu ne allazina yurabbuna annaasa bil ilmi mooy ñi yar nit ñi ci xam-xam gis nga san san xam-xam nit ñi dañuy alku lan moo alak julli di tey mooy ñàkk jàng loolu kese la nga gis ku bëgg a dund diine te jàngul waaw ku jàngul diine doo dugg doo dund diine ñetteel mooy uzamaau nnaas ñan ñoo war a nekk kilifa yi nit yi uzama jamu azim ñan ñooy ñu màgg ñu war a jiite diine ji mu ne man yuallimuuna annaas alxayra mooy ñi xamal nit ñi lu baax wa yahdunahum ilayhi yemuñ ci xamal leen lu baax waaye di leen ci orienté di leen ci jéem a teg ñii ñoo war a nekk sëriñu nit ñi ñeenteel mooy as sujuudu li gayrillahi taala kufrun képp ku sujootal ku dul yàlla yéeféer nga waaw waxoon naa ko sànq de ne woon naa nit dana romb dégg kàddu gi te tiimul ci téere bi mu ne kii day tooñ lii waxu yàlla la as sujuudu li gayrillahi taala kufrun ñu ne ko lu tax luy dalil bi mu ne lima warada annal aaya nazalat raddan ala man aradu an yasjudu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam aaya bi xam ngeen lu tax mu wàcc ay nit ñoo ñëwoon ne yonent bi dañu laa sujootal yow ni nga màggee dañ la war a sujootal ba nit ñi xam ne ñi toog xam ne kii mooy waa ji mi ngi nii toog ndax dafa am loolu la war a ràññi ak nit ñi ndax yow doo nitu kese léegi nag da ngay bàyyi ñu lay sujjootal yonent bi ni ah rek aaya wàcc yàlla mu ne ay yaamurukum bil kufri baada is antum muslimun waaw kii moom ñii moom yow yonent dañ lay indil ak kéeféer ginnaaw ba nga nekkee jullit gis ngeen kon aaya yi ci ngoonu tey gi ci kàttanu buur yàlla tabaraka wa taala mi ñaari aaya moom la ñu fas yéenee jël أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يعمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيعمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون يقول تعالى برم بنينا ما كان يلل ورل جادول ما كان ورل دي يلل دي جادول دي لبشر تبندف أن يؤتيه الله يالا إندلكو مايكو الكتاب تيري خم خم ndeysaan lam yakun min sa'anil insaan warul nit mbiru nit an yu'tiyahu llahu alkitab yàlla may ko téere ndeysaan yàlla may ko xam-xam yàlla def ko kilifa diine yàlla def ko njiit may ko xam-xam waaye jox ko hukmu mooy atte wa nubuwa yàlla def ko yonent lii yëpp pouvoir yëpp yàlla dajale ko ci kawam ah alkitab wal hukma wan nubuwa lii yëpp yàlla defal ko waaji alkitab wahyullahi wahyu bu bàyyi ko ci yàlla almaktub boo xam dañ ko bind wal hukmu bi maana alhikma wa hiya alfiq koo xam ne yàlla déggloo na ko diine fi asraari shar'i yàlla may na ko mën na frem fànce mën na communiquer ak nit ñi mën na frem fànce atte diine yi wan nubu wata yàlla defal ko taraangal yonent maa yusharrifu llahu taala bihi abdahu yàlla defal ko bépp xéwal teral ko ndeysaan di wax ak moom yàlla xamal ko kumpa yàlla xamal ko déggloo ko diine may ko alquran moom waajooju lan la def summa topp yaqulu linnaasi mu ne nit ñi kuunu ibadan li nekk leen samay jaam lii du waxu yàlla waxoon naa sànq ni dina dégg ñu ne yellul ku am diine wala nga am xam-xam nga woo nit ñi ne leen jaamu leen ma lii yàlla ko wax yàlla nee na warul nit koo xam ne yàlla moo ko siggil moo ko teral ci xam-xam ci diine après lan la war a fay yàlla lan la war a liggéeyal yàlla ci loolu yàlla may ko lu dul mu taxaw waaye mu ne summa yaqulu linnaasi mu woo ñun ñëpp ba ñëpp ñëw mu ne kuunu nekk leen ibaadan lii samay jaam maay seen sang maay seen boroom te ñëpp ay jaam ngeen waa ji buy toog sax ci kaw lay toog ñëpp toog ci suuf ñaata yoon ngeen koy gis kuy ñëw ci moom da ngay raam wala fekkee gisu leen ko rek wax leen waaw ndeysaan son naa gis kenn koo xam ne fauteuil bi mu toog chaise bi allahu akbar waxuma la dara waaye dafa sol ay gants nit ñi ran di ko nuyu moom mu sol gants nii rek la de xoola nii du def sax nii pour bés déedéet nii rek boo laalee fóon dem keneen ñëw nii rek gan gan nit ñi rang nañ fii ba loolu diine la yonent alayhi salaam est-ce que bu daan sol nit ñi day day bu daan nuyu nit ñi day sol gan est-ce que saxaaba yi bu yonent doon toog ñoom day toog ci kaw ñu toog ci suuf est-ce que daan toog ci ay canapé yoo xamante ne ah est ce que yonent bi noonu def daan na def noonu sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan benn waaye ñëw na rek gis yonent bi rek tiit di jubbi jubbi yonent bi na ko dalal man doomu kenn laa koo xam ne ci yéen la bàyyeekoo ci seen mbokk la kenn laa koo xam ne ñaar laay dundee ñaar yu ñuul mooy lan tàndarma ak seel tàndarma ak seel wala ndox ñaar yooyu laay dunde dalal dalal ñoo nañ fekk ñoo ñu ne ko anta sayyiduna wa mu ne ee laa tatturuni bu leen ma jay kama atarati nasara ibnu maryam bu leen ma jay ni chrétien yi jaye isa innama ana abd man jaam dong la fa qulu abdullahi wa rasuluhu nee leen ma jaamu yàlla yonent yàlla may xoolal li am na ñoo xam ne grand mbubu bi ñu sol rek grand mbubu bi day taxaw bu ñu ko simmee tam grand mbubu bi day taxaw ndax ngom bi day kàdd kaadaaral taxaw da ngay gis koo xam ne day tiitaroo ay oto un milliard ay mbubu un milliard dàllu un milliard sama dàll yi de mbooloo mi kenn solu ko ci loolu daa am njëriñ yonent bi amul woon loolu soxlawul woon loolu sallallahu alayhi wa sallam yonent bi xam nga lu ko intéressé woon xeet bi du ko àjjana kon ku wuutu yonent bi noonu nga war a mel waroo lekk te nit ñi lekkuñ ndeysaan dama doon jàngal xale yi barki démb birru Umar ibnul Xattaab birru Umar Umar ñu fal ko amirul muminin Omar tëddul guddi di nelaw de Omar nee na man duñ ma du ma wuutu yonent bi siis bi yonent bi doon toog man du ma fi toog ba pare tëddul di nelaw responsabilité jaami yàlla yi xaw ma ci luñ nekk Omar jëli yaram di wër dëkk bi Omar di dox mu ngi ànd ak benn saxaaba ndeysaan kookoo koy gunge ñu doxa càgg ñu seen safara di tàkk waaw dañ dem xool fa ñu ñëw ba jege xoolal de amirul muminin président de la république mu ne asalaamualeykum wa rahmatullah baatu jigéen daal leen di fay mu ne ko ma jege wala ma dem mu ne ko ah jegeel te indaale yiw rek ak jàmm Omar jege na waaw xale yooyu ma dégg ñuy jooy lu ñuy jooy ndaw si ne ko dañoo xiif mu ne ko cin bi li ciy tàkk nag lan la mu ne ko ndoxu kese laay baxal pour xale yi gis ko di yaakaar ba nelaw rek di jooy ba nelaw rek ndoxu kese la dara nekk ci na lii da xanaa Omar ah mu ne ko Omar eh Omar de dafa dañ koo fal ci sunuy mbir ba pare mu sàggane ko yatawalla amrana yatawalla amrana wa yaghfal anna ndeysaan dañ ko jox sunu mbir ba pare mu sànni ñu fare rek Omar daw waa ji ko toppoon daw Omar fan la dem baytu daqiq kër gi ñuy denc sunguf si dugub ji ceeb bi mboq mi Omar daw ba ni ci bunt bi cëpp waa ji ko toppoon na cëpp Omar yëkkati benn saak ne ko yen ma ko waa ji ne ma yen la ko ma yenu ko wala nga yen ma yen ma yenul la ko Omar ne ko yen ma ko waa ji ne ko amirul muminin baal ma yenul la ko Omar ne ko yow yen ma ko mu ne ko baal ma yen la ko mu ne ko est-ce que yow mal xiyaam di nga ma yenu samay bakkaar waa ji ne sëcc rek Omar jël saak bi daw ñoo ne ndaw si jox ma ndaw si jox ko mu sotti waa ji jël di sotti Omar ndaw si laax waa ji sotti Omar sëgg ci suufu matt mi di ëf matt mi waa ji nettali hadis bi nee na maa ngi seen saxaar si ci sikkimu Omar maa ngi seen saxaar ci sikkimu amirul muminin nee na ñu laax laax bi ba laax bi ñor ñu yekk ñu def ko ci bool bi Omar jël kuddu di ràcc di upp naan leen lekk leen waaw lekk leen rek ma leen di ràccal ñu lekk ba suur ndaw si xool Omar lii yëpp nag xamul ne Omar la de mu ne ko wallahi yow lañ waroon fal amirul muminin yow day àggan Omar xoolal limba mu ne na ko ne eh waay yow yow xanaa xamoo ki ngay waxal xoolal mu ne ah ndeysaan Omar da koo yëgul rek waaye boo xëyee suba nga ñëw seet si ko dinañ ko wax affaire bi comme yëg nañ ko ñun wala ba léegi feeñiwul ndaw si ndaw saa nga naan ko yow da lan waroon fal yow da yaa ko gën ndeysaan ba fajar jot xale yi nelaw Omar jël li desoon ci mboq meeg dugub beeg li mu indi woon yépp teg ni ko saa yu ñu xiifee toggal leen waa ana bàyyu xale yi mu ne ko seen papa Omar la leen yóbbu jihaat mu dee ba pare Omar sàggane njabootam laa ilaha illa Omar déggul baat yooyu mbokk yi jàmm Omar ñibbi munta nelaw fajar ndeysaan ndaw si ñëw ndaw si bi mu xoolee waa ji toog mu ne waaw kii kan la gaa yi ne ko kii mooy Omar mu ne kon de man def naa musiba man démb kii laa doon xas kii de moo ñëwoon di ma toggal laax bi kii la kii mooy amiru muminin wallaay ku wuutu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bala ci barabam ndeke du nekk ku sàggan ndeke moo tax Omar sàggan yéen nag ban président ngeen am yéen kilifa diine ngeen am natt leen ko ci ñaar ñi xool leen ndax seeni kilifa yi nuroog na ñoog Umar xool leen ci diine ak ci àdduna nag ñan ngeen am mooy miskin yuy faatu yuy dee di alku kilifa diine yi duñ ko yëg kilifa àdduna yi duñ ko yëg wala ah mu ngi nii doo dégg sax doo dégg sax ndeysaan taalibe bu am problème mu sëriñ bi ñëw sax ne ko ah maa maa la jox 2 millions yi boobu waaye yow di nga da nga am problème kër man de yor naa 50 kër waaye bal sëriñ bi day ñëw di nangu këru taalibe yi wala di xëccoog ñoom kër yi di xëccoog ñoom jigéen ñi di xëccoog ñoom oto yi waaw loolu loolu loolu njiitu njiitu diine la yàlla nee na maakaana yellul li basarin ci mbindeef an yutiyahu llahu yàlla indil ko alkitaaba téere may ko xam-xam wal hukma ak atte xereñ wan nubuwata ak nekk yonent terale ko waa ji lii teraanga yàlla may ko yëpp suma topp yaquulu mu naan linnaasi nit ñi kuunu nekk leen ibaadan lii samay jaam min dunillahi bàyyi leen yàlla topp leen ma man waaw maay yàlla waaw maay yàlla ndeysaan la ilaha illallah nan leen yàlla jégal sax ci baat bi ñu koy wax nan la nit ñemee war a am fit di toog ci ne day toog ci barabu yàlla nit mbindeef koo xam ne yow yàlla nee na subhanahu wa taala ci ndox miñ la bind xuliqa min maa'in ci ndox mahin ndox mu ñàkk solo ndox mu salte ba ku mu taq sa yaram boo xëyee suba sangu ku mu taq ci yére yi xëyee suba fóot ndox moomu lañ la bindee ndox mi feesul xottu gerte ndox moomu la yàlla jël mu ne fa jaalnaahu fi qararin makin dama ko dugal ci place bu am sécurité ila qadrin maalum ma jëme ko dig diir bu ñu xam may changer ndox mi étape par étape étape par étape ba mu xëy nekk nit ma koy sàmm ci biir bi ba juddu jot kenn mënu ko faa génne ku dul man amul yenn loxo yu fay dugg ñoqati ko mu génn wala wala yàlla nee na may toog ba mu neex ma rek ma xam ne ñëpp tële nañ kenn mënul dara ma joxoñ ko nekk uxruj ayuha mawluud bi xaqil malikil maabud kon nit waroon na am jom de jàppopp yàlla nit boo toppul yàlla rek da ngaa ñàkk fayda topp say moroom topp koo xam ne yaa ngi moom yéen a yem képp ëppalewu la dara lan la la ëppale dara kenn doo nga war a topp mooy ki la yàlla topploo subhanahu wa taala mu ne walakin waaye waa jooju lan moo ko waroon lan la waroon wax lan moo ko waroon ci taraanga bi yàlla defal ko walakin waaye waa jooju lan la waroon def mooy kuunu mu ne nekk leen jaami yàlla yi rabbaaniyiin li kasrati ibadatihi wa gazaratihi ilmihi aw ila rabban wa huwa alladi yurabbi nnaas ndeysaan nekk leen ñoo xam ne da ngeen di askanoo ci yàlla ñoo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo leen di gënal lépp yu rabbihi fa huwa rabbaanun la is dabbarahu wa aslahahu nekk leen ñoo xam ne da ngeen a yaru ci yàlla mooy rabbaani yiin ndax yàlla bu la teralee dafa bëgg teraanga boobu mu la may mu gis la nga ci ka koy def yàlla def la kilifa diine ku la gis rek na xam ne yow kilifa diine nga da nga ko wone maanaam place yàlla nga toog kon wone ko ci jaam ñi jegeel jaam ñi musal leen jàngal leen loo leen di musalee mooy nga musal leen ci safara dimbali leen xamal leen loolu mooy rabbaani yiin nekk leen ñoo xam ne da ngeen di yar nit ñi ci yàlla nee na yonent bi nee na jàngal leen diine xoola yonent bi yàlla mayoon na ko pouvoir yu bare bare mu mun koo def waaye li ko waroon ci ay nit góor ak jigéen boroom xam-xam yi nee nañ to toll nañ ci cent vingt quatre mille personnes waaye déggoo ci kenn débordé naan ko yow yaay yàlla waaw da nga gis tey ba kilifa diina boo xam ne bu nit ñi toogee bu ne tëll ñu ne borom jaam ñaangoog jóg leen ñëpp jóg ñu yuux inna borom jaam ñi baat boobu ëpp na di baat boobu ëpp na di dégg naa benn kilifa benn waaye boo xam ne nee na kilifa diine la moom dafa ne biñ ko ne waa yow yow sa taaliba bi bu nga yóbbu ko police mu ne daane maa yàlla te man duma yàlla ñu ne ko waaw yow yaa ngi wax diw yàlla la mu ne waaw man duma yàlla kooku mooy yàlla wala déggu leen loolu waaw ragal leen yàlla bu ngeen déggu de da ngeen naan dégguñu mu nga dégg ngeen gis ngeen seetaan ngeen ko sax nag waaw la kon nag ñun fenuñu de ndeysaan loolu mooy sunu problème mooy nit ñi yàlla da leen di may ba pare leen yàlla may wala ñu delloo ko yàlla ñu nëbb yàlla wane seen bopp ñu def seen bopp ay yàlla yu ndaw naka la nit amee fit yor rajo di wax sa kilifa diine mooy mooy borom jaam ñi borom jaam ñaa ngoog jóg leen tànt bi ñëpp jóg ñooñu ay lan lañ lan lañ def kooku waaw ñoo leen yàlla jubal waaye loolu yëpp li ko waral mooy réer rek li ko waral mooy sori alquran waxoon naa leen ko alquran ku ko sori alko walakin waaye kunu nekk leen rabbaaniyiin yuy yar nit ñi jëme leen ci yàlla lu tax lii mooy sabab bi bima kuntum tuallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun li ko waral mooy da ngeen a nekkoon ñoo xam ne bi ma kuntum ci li ngeen nekkoon tuallimuuna alkitaaba ngeen di xamle téere bi wa bi ma kuntum tadrusuun ak li ngeen nekkoon di ko jàng naka la nit di jàngee diine jàng alquran jàng tawxid bu sell jàng fiq jàng lépp jàng diine ba pare bëgg cee dëgg tàng yàlla de lii la wax waaye nag yàlla kay su waxatee amul amul waaye wala yàlla bu waxee amatul keneen laajatuñu keneen sa soxla laajatu keneen ndeysaan benn benn benn jigéen dafa muur muur muur yaramam bi yépp sol ay gants sol ay kawas muur kanam gi jëkkër ji ñëw ci benn benn benn borom xam-xam mu ne noo sama jabar daf maa jaaxal mu ne lan moo la jaxal ci moom mu ne si ni mu muuroo dafa ëpp man sax d'accord naa mu muuru mais muuraay bi daa ëpp mu ne ko lu mu def mu ne ko dafa sol yére yu jot muur tànk yi dafa sol sax ay kawas loxo yi sax ay gants la sol mu ne kanam gi nag kenn mënu koo gis dafa muur kanam yi léegi damaa bëgg nga waxtaanal ma moom ba mu mun a wàññi mu mun koo wàññi mu dindi li ci kanam gi dindi loxo yi dindi tànk yi man bañu ma mu muur sax waaye kanam gi bokk na feeñ mu ne xam-xam bi ne ko waaw daal ne ko soxna si anam mu ne mu ngi kër ga mu ne dama nga ne ko na mu wuyu si waaw waa ji daal di ñibbi daal ne soxna si dama nga wuyu diw ne lu mu may doyee mu ne ah wax dëgg yàlla xaw ma ko de demal rek mu dem soxna si daal di sol yooyu mu sol kawas yeeg gants yi ñëw tegal ko fauteuil mu toog mu commencé naan ko waaw xam nga diine moom euh, mën ngaa solu waaye nag sol bu yem rek nga bañ a ëppal ndax yéen nii ëppal la ndax sa col gi nga sol nii mun naa baax sax waaye nag mu ne ko amu fi place sëriñ bi ne ko ah mu ne ko baat boobu nga wax mu ne ah du nga ni col gi mën naa baax du lool nga wax mu ne waaw waaw mu ne ko lii ma def nii ndax alxuraan bañ na ko ak sunna mu ne ko déedéet waaye mu ne ko waaye bi amu fi place yaa ko ci yokk daal jóg dem yoonam ndaw si daal jóg dem ne ko yaa ko ci yokk amu fi place wax na dëgg wax na dëgg amu fi place ñu loolu lan lay wax yàlla de lii la wax yonent bi tamit loolu la wax waaye nag ndeysaan ñun ñëpp loolu moom dal waaye nag waaw waaye nag ndeysaan waaye nag waaw waaye say mbokk xam nga ñun suñu aada waaye xam nga mag ñi waaye xam nga dëkk bi waaye xam nga kër gi waaye xam nga waaye xam nga nga bàyyi li yàlla wax nga topp leen ndeysaan yàlla na yàlla jubal borom bi nee na subhanahu wa taala warul waa jooju de yellul de wala yaamurukum waru leen a digal an tattaxisu ngeen jàpp almalaikata malaaka yi wan nabiyin ak yonente yi arbaaban ay yàlla jaaduwul waaw waaw jaaduwul de waroo digal nit ñi xam nga nag chaque jour yàlla ndeysaan sunu borom buy wax ak ñun moom comme ku kawe la ku màgg la fu kawe lay tibb wala mu nekk fii naan la nit xam nga nit ci boppam dafa jàpp ne kan moo ko ëpp pouvoir malaaka après ginnaaw malaaka après ginnaaw jinn yonent yi moo tax yàlla ne nit yàlla waru ko may loolu ba pare mu leen di digal na ngeen jàpp malaaka yi ak yonent yi def leen ay yàlla kon buñ la ne waroo jàpp malaaka ak yonent def ko yàlla ñan ñoo nekk ci suuf kon war ngaa jàpp keneen gis nga yàlla bi muy wax mbirum sujjóot daganul sujjóot boo waxee gaa yi ñu ne sujjóotuñu li ñu def lan la yàlla nee na laa tasjudu li samsi wala lil qamari fasjudu lillahi alladi xalaqahunna gis nga yàlla ci ponkal yàlla dem bul si jootal weer bul si jootal jant bu ñu ne nit jant ak weer ba pare ñu ne su jootal leen yàlla nit ak weer lopp bu ñu ñëwee ci kër gi ñu wax ak sa papa ne kër gi bugguñu fi nàngam sa papa lañ waxal ñu ne ko kër gi bugguñu fi nàngam kon est-ce que xale yi waxuñoo ak ñoom wax nañoo ak ñoom wala waxuñoo ak ñoom ah bu nit di luwe kër gi kan la koy luwe papa ji mu ne ko kër gi dama koy luwe bugguma fi musique kan lay waxal ku ku muy waxal waa ji ñépp dugg nañ ci jabar jeeg doom yeeg gan yi ñëw ci kër geeg waaye gis nga wax ji ci kan lañ ko jaarale ci borom kër gi bàyyi ci yàlla ne bu leen sujootal jant bu leen sujootal weer waaw nit ak jant ak weer lu ëpp bu ñu xëccee ponkal yi kay kon nit waxi noppi nan yàlla jubal yàlla mu ne ay yaamurukum ndax ñoom dañ leen di digal gis nga aaya bi xam ngeen lu tax mu wàcc aaya bi nii ay yaamurukum bil kufri baada is antum muslimun xam ngeen aaya bi lu tax mu wàcc ay nit ñoo ñëwoon ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne dañ koy sujootal lan la leen yàlla wax ndax yow yonent ñii dañ lay delloo ci kuf kéefir xoolal qaalatil yahud aaya bi li tax mu wàcc mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na mu ne nazalat aaya bi nekk suñ kanam boobu ñu bëgg a jël mu ne nazalat aaya bi wàcc na raddan di tont ala man araadu ci ñi nga xam ne namoon nañ an yasjudu li rasul ñu sujjootal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala taala yàlla ne leen waaw yéen a yamurukum bil kufri a yamurukum bil kufr baat bi baat yi mooy nit saa yoo ko sante mu def leneen lu dul li yàlla bëgg diggal nga ko kufr soo ko bàyyiloo julli diggal nga ko kufr soo ko bàyyiloo woor diggal nga ko kufr boo ko bàyyiloo aji màkk dugal nga ko kufr soo ko bàyyee jàngal alxuraan dugal nga saa yoo ko sante mu bàyyi ci diine ji dara wala mu def lu xaraam dugal nga ko ci kufr yàlla waxul ay amurukum bi zan bi de ay amurukum bil bidaa ay amurukum bil aada yàlla waxul loolu yàlla wax parce que loolu ñu bëgg a def ibaada la sujud ibaada la kan moo ko moom dafa am juróom-ñaari cër ci nit yàlla moo ko moom mooy ñaari ténq jë ak bakkan ñaari oom ak ñaari cati baaraam yooyu pour sujjóot la yàlla moo ko moom ñu ñoom ñooñu waroo leen dajale ci nit ñun léegi nu ñuy def fi ñi sujjóot ni ñuy def daanaka sax ëpp nañ loolu ëpp na ko ñoom lépp la ñuy joxe loolu nag ak kufru la lii bu fekkoon ne du kufru xoola ay nit yi ñëw ne yonent ñu ne dañoo bëgg a sujjóotal yonent yonent màgg na wala màggul ah xel xel xel kese kese laa wax de xel sans texte nangu nañu sujjóot ko wax nangu ko nangu na ko waaye texte moo ko dindi nag moo la wan ne waa dëgg la de kii màgg na torop nag waaye nag fii nga war a yem ak moom nag loolu moo tax sans texte da ngay alku li lay wan ne islam texte la du ay xelu kese mooy mooy lii ma leen wax ni benn gi ni ñaareel bi mooy yonent yàlla Moussa yàlla woo na ko ba ci tuuru Sina montagne ba ne ko wa maa tilka bi yaminika yaa Moussa lu nekk sa loxo ndeyjoor mu ne lan qaala hiya asaaya qaala hiya asaaya atawakkaw biha dama ci sukkandiku ma ci appui wu waaw waaye nag am naa ci ay affaire tamit dafa liye fiha maarim dun uxra ba mu waxee lu mu koy doyee ba pare mu ne wax yàlla am na lu ma ci nëbb de waaye am ponkal bu ma dab ba ma jël yat bi ma am naa ci yeneen affaire ci biir waaye eggu ci yàlla ne ko nag kaay ma yëgal la nag yat bi tamit xam nga wax nga lépp li ci nekk mu ne wax yàlla ne ko am na lu ma ci denc te xamoo ko mu ne ko lan la mu ne ko sànni ko Moussa sànni yat bi yat bi nekk lan jaan mu ne ko téye ko xel nangu na nga téye jaan ak sa loxo ah moo diine du xel lan la utiliser bu mu koy téye ngëm iman texte teer rek mu téye waaye xam nga bu doon xel looy wax ah gars yi nee nañ am na benn buur boo xam ne ndeysaan dafa amoon doom ju rafet mu yéene doom ji jab jarbaatam comme xam ne ne moom mënu ko takk ay doomam mënuñu ko takk te bu ko may keneen nga xaaral may ko sama jarbaat mu woo jarbaat bi ni ko gis nga sama doom ji mu ne mun a yow rek laa ko yéene waaye damaa bëgg bu ma la ko may nii rek kon dañ naan moo da koo faral parce que mbokkam la damaa bëgg nga def lu ngand su ko defee ma ma ma jox la ko ñu ne ñu ne lu rëy nga def ma tere la ko lu ngand loo ne xam nga nan la damay jël benn jaan bu ngand ma teg ko ci digg stade bi ma ni ku bëree jaan bi rey ko rek dinaa ko may sama doom mu ne gis nga jaan baa ngi nii dindi naa bëñ yi dara du màtte mënalu la dara xool nga ko mu ne waaw gis naa ko bismillah ah buur bi daal di tëgg sabar bi stade bi yëpp ñëw mu ne jàmbaar yëpp nañ ñëw dëkk bi jàmbaar yëpp sol seen yére takk seeni ngànnaay daal di ñëw ana jàmbaar yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne taxaw leen ñu taxaw buur bi daal di jël doom ji teg ko fay mu ne gis ngeen sama doom jee ñu ne waaw kan moo ko bëgg ci yéen ñëpp yëkkati seen loxo mu ne waaye nag du ma ko mayee noonu jàmbaar laa koy may te pour ma xam ne dëkk bi am nay jàmbaar rek mu ne génne leen jaan ji ñu génne jaan ji jaan ji di fuddatu naan nii mu ne ku ko rey rek ma may ko sama doom mu ne nii jarbaat bi jarbaat bi ne fa naan xel mi est-ce que bii wóor na parce que sama nijaay mi piégé wu ma bii daa mel ni bii bopp bee gën a ngande de gis nga ba benn waay jóge fële rek daal di plongé ci kaw affaire bi daal di koy rendi ñu may ko ndaw sa ñu woo ko waa ñu ne ko waa yow nijaay ñu ne ko waa yow mu ne yii nijaay wóoluwuma ko woon ak on donc on sent est-ce que mu ngoog kon nit sunu borom subhanahu wa taala li mu ko wax rek mooy dëgg jaamu yàlla rek rek rek moo lay musal amul leneen yàlla subhanahu wa taala su fekkente ne dafa tere dara loolu mu tere loolu rek moo lañ war a bàyyi waaye mënuñoo jaar yeneen yoon wiiri ay koñ wala ay nit def ko wala wala ba mu baax munul nekk yàlla bu araamalee dara rek araam na ñépp a ko war a bàyyi aaya bii di ñëw kon loolu moo tax mu wàcc mooy lan ay nit ñoo ñëwoon ci yonent alayhi salaatu wasalaam ne ko ay ñu sujootal la yaa yow kilifa nga ku màgg nga dëgg-dëgg yayoo nga ko waaw yàlla subhanahu wa taala daal di dàq wax jooju mu ne aya amurukum ndax moom daf leen di digal bil kufri ci kéefir gis nga kufr la wax nekkul sax di ko raay bil kufri baada ginnaaw is antum muslimuun ba ngeen nekkee ay jullit kon ginnaaw ba nga nekkee jullit ku ñëw daal lay digal yoo xam ne yàllaa ko tere nga def loolu léegi lan nga nekk nga yéeféer su la bàyyi loo julli nekk nga yéeféer su la bàyyi loo woor wala léegi koor gi koor gi bu ñëwee da ngay gis ay association lan café wala ñu woor man du ma woor ndogu laay jooy nga gis ponkal mu ne lëng lëngaaral bu ngoonee rek mu wut ay matt taal ñu jël ay cin tekki nga gis sénégalais yu waraakaana yu xiif yi moo tax yàlla di leen toroxal ana luy ñaani kafe kafe luñ ci ñaani foo jëndee cent franc am kafe saaf ba do naan ba doyal ngay rang nga gis ñuy rang nag rang ila way Sénégal ñoo ñeme yëfu wala kaana moo tax ci wala kaana la ñuy dee parce que loolu la ñuy gàng waaw loolu la ñuy gàng ndeysaan kafe yu ñàkk fayda la ñuy la ñuy jiiroo yu ñàkk fay amuñ benn dignité amuñu benn personnalité nit day am dignité xataa bu xiifee xoolal yonent bi yàlla dafa tagg saxaaba yi nee na boo leen xoolee xam ne ñi ay miskin lañ de da nga koy xamee ci seen kanam mu ne waaye laa yasaluna annaasa ilhaafa du ñu taxaw mukk buntu këru kan di ko sonal te boo leen xoolee seen kanam yi xam ne ay miskin lañ waaye du ñu laaj du ñu laaj allahu akbar du ñu ñaan kenn du ñu saraxu kenn du ñu xaaraan kenn nit day am personnalité day day nit day am dignité nit day am qualité waaye nit ñoo xam ne xam ngeen mbàqu xar xam ngeen mbàqu xar boo taxoon fii di may sax di nga ku ne may ma ci ma togg da xit billaahi billaahi lu ko waral mooy ñàkk ngëm yàlla ñàkk iman ñàkk am conscience islamique moo tax li ñu dal nii di dal nu waaw li ñu dal nii dal nu ab jullit mbokk yi jullit jullit dafa war a nekk ku am dignité jullit foo ko xool rek da nga xam ne kii jullit la waaw jullit dëgg ngi nii xattaa su amulee xattaa su amee ak nu mu mën a mel su wéree su feebaree su xiifee su reggee yépp da ngay xam ne kii jullit la bu xiifee du ko wane bu reggee du ko wane bu amee du ko wane bu ñàkkee du ko wane yàlla moo ko wax saxaaba yi loolu la nekk te dañoo ñàkkoon de amuñu am na ñoo xam ne ahlu sufa lañ leen tuddee ci jàkka ji lañ nekkoon am fa néeg alhamdulillah su dëkk bi añee ba pare ndeysaan bool yi des lañ leen di indil wala waa kër yonent bi ndeysaan buñ yekkee yóbbul leen bool ahlu sufa waaye daawuñ dem ci mbedd mi di tànqal gan comme ñun niñ mel nii ñun daawuñ ko def kon bokk jullit yi ñaari aaya yi moo doon sunu darsu tey bu amee ay njuum te ñu ngi koy jéggulu sunu borom ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu fekkee samedi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu